la avertissement 5 tonnes loo def bàyyil tooñ ñoom ñaar ku nekk am nga benn te arbitre bi sifleegul diggante 5 tonnes la ak Ndiaye Lakh arbitre sifle na troisième combat de la soirée Ndiaye Laar moo ñu wan ginnaaw Singleton wan ñu kanam ñoom ñaa ñëppee ko sañ jiital journée Pape Abdou Fall production fii ci arène nationale Singleton jàppante na ak moom Singleton daw na jàppante ak moom teel na ngembali cinq tonnes borom Sandaga moom moo doon sangoo saafara bi fee sa rond point Sandaga moom cinq tonnes moom cinq mu war a jàkkaarloo Ndiaye laax day lekk laax bi wala lu muy demee noonu diggante cinq tonnes ak Ndiaye laax laaxul la cëri la wala laaxu ngi la jóob waaye moom cinq tonnes tonu ciment la tonu fer ñoo ngi ni teg di déglante ñoom ñaar diggante Ndiaye Laax ak Sengatoon diggante Ndiaye Laax moo doon sotte ko saafara bi fee sa rond-point rond-point dara moom Sengatoon jàppante nañu ñu ngi mën a bante ñoom ñaar

Sengue bëre la indi mais Ndiaye xeex la indi moom Ndiaye laax diggante Sengue Tonn ak Ndiaye laax diggante Sengue Tonn ak Ndiaye laax ñaari mbër yi ci moom 5 tonnes moo doon Sandaga bu leen ko fàtte mbokk yi. lay ñu ngi jàppante ñoom ñaar bëri leen. yow da nga sene ba sonn ñoom ñaar jàppante nañu 5 tonnes te na si batu yi bu mu dëgër ni dee du ko moom 5 tonnes ñoo ngi jàppante waaye bëre wuñu bëre leen ah, bàyyante ñu ñoom ñaar arbitre bi àtte na nee na si dugg géew waaye bëre leen nañ bëre leen arba siflé waat na diggante 5 Tonnes ak Ndiaye Laar 5 daw na jàppante Ndiaye door na ko cinq bëggul xeex bi cinq bëre la bëgg bëggul xeex diggante Ndiaye Lakh ak 5 tonnes 5 tonnes borom marché Sandaga bëre leen ah xale yi jàngaleen bëre bu tolloo fii fa rek ngeen di nangu dégager ay kele pour que ñu leen di mën a bég ay xale ngeen wane seen bopp. ba léegi mbokk yi ñaari mbër yi ngi jàppante xeexuñu bëre wuñu war nañoo jàngi bëre de ndax bu combat tolloo fii war nga mën a wane kale waaye jàppal ni tekk bëre woo puusoo paasoo bëre leen da ngeen di am avertissement kay bëre wu leen ah ah 5 ñoom ñaar ko nekk am nga deux avertissement xeex nañu Ndiaye laax door 5 tonnes fayu. ñu ngi xeex ñoom ñaar diggante Ndiaye la ak Sengton ba kaw doom waaw waaw ba door mu daanu doom wala door mu tërëf Ndiaye la moo ñu wan ginnaaw mbokk yi Sengton wan kanam. diggante Ndiaye la ak 5 tonnes ñaari mbër yi si géew bi ñu ngi jàppante ba léegi diggante Ndiaye Lakh ak 5 tonnes Sarr 5 leen. xale bi seen combat bi yàgg na. combat bu yàggee day yi. bëre leen. Ndiaye Sarr 5 tonnes. fii taxawal xaj na fi. plaqué xaj na fa. lu mu mën a xaj teq tàng xaj na fi jàngi leen bëre xale yi

wala may jàppante ak moom li am ñaareel dooroon na ko eh waay léegi la la tey Ndiaye tey tey Ndiaye laax mi yi xam naa laaxu dugub la. Modou Mbaye simeeku noonu di yëngal public bi Singleton war na ko nomba waaye waaye Ndiaye laa daan na Singleton waaye ah waaye xale bu demoon bi sànni di sangu sa di sangoo garab bi daan nañ ko waaye daanu na Ndiaye laa daan na